dalee nag jàmm seen seen production ñu ñëwaat ak yéen seen série euh, famille sénégalaise c'est vrai nag euh, saison 3 bi ñu ko doon xaaree euh, ñëwewul noonu ba tax na nag action yi nga xamante ne mënuñ doon imaginer pour rek waa Pikine offrir ñu ko mais nag loolu noonu mun nañ ni parti yu bëri gisuñ ko ba tax na nag leen rek moo ñu fi niir ngir rek public bu fidèle ngir rek daal di gunge ñi nga xamante ne ñoo nekk waa Pikine ba ñu daal di réussir seen projet bi mais nag les gars c'est vrai nag saison 2 bi gis nañ conflit bi amoon si entre jabaru Marlo yi mun nañ nag rek asak moment rek si maru lay lañuy gis ay e ciow si maru lay rek ñom ñoy daldi tal nga xamte mo nek galé bi et c'est vrai nak ñu bari ñoo ngi doon imaginer wa ni offrir ñu benen genre thème benen e, développement bi nga xamantene mom lañ do xaar série bi mais nak côté bu ñëwaaté c'est vrai amna important ndax ñu bari ñoo ngi yor seen famille ci bi kër gi e, ay histoire difa daw té duñ xam la moy cause gi mais nak so sétané famille sénégalaise ding ci jël ay raison yi tax ciow di am ci kër gi chaque jour mais nak kër go gis dina am bu fa nek seytaane bu à chaque fois moom mooy daal di indi ay coow ba tax na nag waa film sénégalaise loolu lañ nekk di jàngale loolu lañ nekk di expliquer si li nga xam te moo nekk série bi moo tax soo toogul jàng série bi waxuñ fi dara wala fi dara alors que c'est ñoo ngi jàngale ñoo ngi yeewaa askan bi ngir rek ñu daal di bàyyi xel si seen jabar yi te tamit balaa nga takk jabar xoolal koy takk bu baax ndax am na ñoo xamante ni dañaa juddoog seytaane te ñoom dee moo leen tàggaleeg li nga xam te moo nekk seytaane léegi c'est vrai nag euh, public yu bëri ñoo ngi doon kaas si loolu noonu naan waa famille sénégalaise dañaa war a changer moo tax nag ki di éditeur mu daal di indee beneen façon daal di inverse li nga xam te moo nekk rôle soxna Bator mais nag bu njëkk ba doon soxna Bator doon def di assumer di def ay euh, mbir yoo xamante ne nag gars yi ñu koy gis ñu xam ne lii soxna Bator moo ko def mais nag mun nañu saison 3 bi dafa inverse affaire yi dafay matt di ëf kenn du xam ni Soxna Bator moo def wala nag ñu koy indil ay coow yoo xamante ne xamuñ fu mu jigee mais les gars c'est nag Soxna Bator changé wul te ñu ñii di koy seetaan xam nañu Soxna Bator changé wul dafa nekk di lëre li nga xam te moo nekk askan bi di lëre li nga xam nekk Soxna Marlo yi di leen jaxase nank nank moom ak ki nga xam te moo nekk Issa les gars bi noonu la ñëwaatee ngir rek euh, borom kër yi daal di bàyyi xel seen njaboot yi bàyyi xel nag seen soxna yi këni coow su amatee nañ tey ba xam lan moo waral coow bi mais pas ñuy jël rek di dal si kaw nit ki te peut-être keneen kaa ko causé sax am na soxna ñoom te dañuy màtt di ëf nag les gars di leen wax di daje ba ci beneen analyse